jot na nag suñu Joal Fadiouth bi nag ñu ñu ñu parce que ñun sonn nañu trop ndax xoolal lii lii jaaduwul xale yi dañuy nekk si ndox mi du xuus di ci foo xoolal kër yi nu ñu mel fii yëpp ay kër la kenn amul sa foo teg tànk pour togg sax añ problème la waa fii laa dëkk suñu kër mi ngi fii si kanam mais barki démb dañoo fees Joal fépp a fees te lii moom jaaduwul xoolal Joal ni mu rëyee mu jàppale ñu suñu Joal Fadiouth bi suñu Joal Fadiouth bi ni mu mu mel nii parce que Joal bari na ndox trop chaque nawet dañuy sonn waaw parce que xale yi tamit war nañoo gëstu tamit ne xale yi dañuy nekk si biir ndox mi te ndox mi dafa am microbe waa di dafa tawa tawa taw suñ léegi amul benn néeg bu def dafa dem bay feey lal yeeg lépp dugg ci biir ndox mm-hmm. eh, suñu ceeb bi sax ceeb yu bëri dafa dugg ci ndox lu bëree yàqu ci suñu liggéey bi dëgg la waaw te depuis boobu ba léegi ñu ngi am problème lu ñu liggéeyee ndax géej gi danee teg kenn mënul liggéey moom président defu ko yàlla moo ko def kenn mënu ci la waaye daal buñ amoon dimbal fii boo xam ne bii dañuy dimbali mhm. ba ñu utal yoon wi ba ñu utal ndox mi yoon mu dem géej waaw danañu arrangé trop ci région de Thiès département de Mbour euh, pour xayma li nga xam ne mbënd mi nga xam ne moo daanu ci suñu réew jóge ci aw ay taw yu bare bare bari samedi bi passé jur ci mbour ak ci jowal ma ñëkke mbour bima démé mbour ma gis ne quartier yi nga xamné ne ndox mi bari won na fa ba yegg sax lu mat mètre ñom ci sen bop ben quartier bi nga xamné ne ngi pompe ñu gis fa sapeur pompier ñuy pompe nenañu nañu ben waxtu bi taw bi jexé ndox mi euh, wàññeeku na ndox nekkatul ci biir tali yi fenn foo xam ne fii ñu ngi continuer di fa pomper ñu gis ñun ñëpp ne dugg naa ci ci benn bitik boo xam ne bii nee nañu samedi seen saaku yi ñu fa nekkoon di ko jaay dafa yàqu te tey jii bitik bi ubbiwaat na ndaxte ñoom gis nañ ne ndox mi nekkoon ci bitik bi euh, wàññeeku na deñ na kon boog mooy wane ne nguur gi matukaay yi mu jël pour que lu mel ni su ñëwee ñu génne ndox mi ci kër yi génne ko ci tali loolu mi ngi jur ay résultats yoo xam ne yi mën nañ cee teg suñu bët ñu ñëw tey fii ci Joal ñu ñëw fay tey fii ci Joal ma fekk fi maire bi ànd ak sama naataangoo euh, ministre des des ak gouverneur ak préfet ak délégation bi ñu àndal yëpp ñu gis fi ay quartier yu jafeñ quartier yooyu sax yenn yi ay tool la woon at yële passé yu ñu daan bay ceeb mais sécheresse bi am ñu dëkk fi mu am quartier yu am ay jafe-jafe waaye quartier yooyu tamit gis nañ ne sapeur pompier yi ñu ngi pompe te pompe bi jur na euh, féexaay ci ndox mi nekkoon ci tali dugg naa ak yéen ci kër ci ñaari kër foofu kenn ki ne ma samedi génn na këram démb la fay doog a dellu si te amatul benn ndox bu nekk ci këram moo am beneen jigéen boo xam ne bii suñu benn yaay bu fa nekk ku ñu wax faatu Gueye fële ci quartier Tilène ci diggante Tilène ak ngol na moom ci seen bopp ci seen kanam mu ne ndox mi yeggoon na mètre ci këram te fekk nañ ko fi mu nekk nii ci këram ci biir cour bi gisuñu fa benn ndox ma ko yaay ndox mi ndox mu mel nii kañ nga ko gëj a gis mu won ma benn sëtam ne ma kii de am na lu ëpp fanweeri at te masu koo fekkee man dëkk naa fii lu ëpp fanweeri at waaye depuis fanweeri at gisuñu taw bu toll nii gisuñu ndox mu toll nii te léegi dellu suñu këram donc li ñuy xayma mooy ndox mi bari woon na gaa samdi jamono bi muy taw waaye am na yoo xam ne yi bi mu defee juróom benni waxtu dem na ñii bi mu defee benn bés pour pompier pomper mi kon continuer pomper gis nañu quartier dañuy def peut-être solution solution à long terme pour régler problème notamment le canal bu ndox mi. dama président Macky Sall ni def Sénégal jaxlé bu Sénégal est ci ay jafé jafé yalla xel situation te dana jël dogal yoo xam ne yii dana may ñëpp ñu am yaakaar ci dogal yooyu ni mu ko defee bi Covid bi daanoo ci réew mi mu jël ay dogal yoo xam ne yi ñëpp gis nañ ne suñu réew ñu ngi koy kañ ci réew yi nga xam ne ci àddina bi ni ñu gérer Covid bi baax na kon boo catastrophe bu mel nii nga xam ne dal na yeneen réew aussi ñu wër ak yeneen réew ci àddina bi Sénégal dana ci ràññeekuwaat ci dogal yi nga xamné ne dana ko jël jëmele ko ci saafara mbir mi ak jëmele ko ci dimbal askan bi bo xamné bi bii dana dalal xelu Sénégalais yi suñ ko dégloo tay ji inshallah allah danañu dégg dogal yoy xam nga li ñuy wax né euh, mom la ñu def ci plan décennal de lutte contre les inondations d'abord limay wax dañ né plan bi fukki at la woon hmm? loolu la ñuy wax plan bi ñu ko jël 2012 euh, n'est-ce pas septembre 2012 l'am conseil présidentiel ñu def ko xam nga fukki at yi sax matagul.

Khalis, bi ñu waroon a dugal ci plan décennal de lutte contre les inondations ci lan le dugg nan lañ ko defaree ak fan la tollu, lim ci moy lan lañu def lan mo ci dess fan lañu ñu Té xamna né Mom dana am programme bi xam lan lañu def fiñ ci tollu ak fan lañu ñuy té damay ragal sax né dana ko ndax té li xew daf ñuy encore jangal ci ci infrastructure yi ñu wara a jërëjëf.